Cheikh Bara Ndiaye dafa tayle woon laay am nan la ak naka la ak nan la demee bu ñu yaatalee vidéo bi dinañ si ñëw balay boobu ñu lay ñaan nga j'aime vidéo bi yow mi nga xam ne gan nga nga abonné ñu dikkaat ànd ak yow ci li nga xam ne moom moo gën a fees. xam nga lii li tax ma wax ko dafa demoon Daaru waxti mm-hmm. am fa ay problème ma wax ne. Mm-hmm. Amadou Ba du gagné élection yi. du nekk président de la république ci àdduna. daat koy waat jël ñaar yi nga xam ne xam naa ne euh, ñoom ñaar mooy lu mustaxil ma nekk ko mooy xanaa ma wëlbatikuwaat nekk jigéen te loolu mënta nekk mm-hmm. wala ma wëlbatikuwaat nekk leneen lu dul am murit te loolu ñaar yooyu moom jàpp naa ne ñaar yooyu mooy loo xam ne mustaxil na mënta nekk ma boo amee lii am xam nga loolu moom da nga cee war a dégg rek du am waaw léegi nag euh, après kii dalal ma di ma laaj ci yooyu ma ne ko nag li ma wax que ne loolu ma def comme ni nga wax rek erreur laag ma ne ko bu nee bu dee dama ko làmbatu te teguma ko fenn. waaw def naa erreur bu rëy waaye bu fekkee nag li may wax xam naa ko dimanche soriwul. Mhm. waaw ne ko sax li ci li ci amaat solo mooy. benn candidat buy gagné bureau de vote am amul. Mhm. ñoom ñëpp te yaakaar naa dix neuf candidats yëpp kenn gagné wu ci bureau de ba nga watee waaw kuréel jomaay donc benn rek laa ci génne woon. Mhm. ñi ma waxoon ñoo ci tane gisuma seen chiffre waaye xam naa ne ñoo ci war a tane. waaw mu Cerno ak Xalifa. waaw Cerno tane na tuuti moo tane defe naa. boo jëm rombee kii. waaw am na loolu mais Xalifa moom piir moo ko xaw a lool. jeex na kon nag mi ko léegi nag loolu la man li ma doon wax xam naa ko. Hmm. xam na nit ñi moom. surtout sama mbokk yi. nga waxaat tamit ne balaa. waaw maa la ko waxoon si ah yow kay loolu kay nga waroon a dugal saa njóogu résultat yi loolu. loolu nga waroon a dugal waxuma la fii keroog ne soo ndogoo. waaw bépp sénégalais bu ndogu bala ngaa naafi la. waaw nga xam sa président. waaw loolu wax nga koy. nga ne ma loo wax ma ne la alxames dinaa ñëw fii dinaa toog fii élection yi premier tour la su alxamesee Sénégal dina xam kan mooy président Sénégal. Hmm. alxames a nii maa ngi nii loolu fàtte woon naa ko. maa ngi nii toog alxames a ngi nii. Hmm. xam nga président wala xamoo ko. loolu da ko gisaane woon da nga ko xool wala. déedéet dañ la ko wan wala da nga. en tout xam naa wala nan la yëf demee woon. waaw xam na daal en tout man. waaw. dama bëgg sama mbokki sëriñ yi. waaw. du ma wax sama mbokki sëriñ yi ndax ñi ci ay sëriñ. non am na ñoo xamante ni ñi ci ay sëriñ moom ay sëriñ lañ. waaye bu dee yow bu dee yow da ngaa jàpp na yow. Mm-hmm. maag yow ñoo tolloo xam-xam. man taxaw naa ma ne di bu diw nekk gañee ma ne ma ma am jëkkër kay. Mm-hmm. yow tamit dangay taxaw nga ne bu diw gañee ma am jëkkër comme man nga xam ne maag yow moom kenn du ci rëcc. waaye mënoo ñoo naan non li mu wax nii di wax ay tappale. gis nga bu ko amut xam-xam ñëwal ma jàngal la waaw ñoom laay waxal sa gaa yu bari wax yooyu rek di ca ba tararari hmm. ku ci amat xam-xam da ngay ñëw fii nga aliwa te waayaf ma jàngal la hmm. af ay xam yu ma xam hmm. saa man li ma <laughs> li ma la waxoon daal mu noonu gis ko gis nga ko wasalaam voilà man sax nekk fii naan ay maa waxoon leeg maa waxoon laa uh-huh. ba may waat fii ci uh-huh. dëkk bii ne Macky Sall du def du du amati ab ab ab mandat ci kaw suuf bu la 2 avril jàllee man Macky Sall jeexal na yaakaar naa léegi mu ëpp at ba ma koy wax booba Macky Sall ci boppam jàppoon na ne day def troisième mandat da koy am. Mm-hmm. ma taxaw fii waat ci sëñ Touba Mbacké ne du ko am. def na lu mu xam amu ko de. Mm-hmm. voilà nit nag bu ne fu ma joxañ ab jant génn fa del joxañ peng. Mm-hmm. waaw ay wax di làmbatu moom bii paa dangay wax dëgg bii doo wax dëgg bu dee nag li ngay wax am na ay sources yu leer yoo koy teg. ah kooku nag moom su ma ko waxee man maa ko wax. voilà ñoom nag gërul ñuy bari wax parce que bu fekkee man dama ne dimanche la. diw lii mooy am yow kenn déggal ba dimanche ah. waaye bëgg ci njëkkante defi vidéo woo site yi kenn ku ne di jaay taral rek maa ngi leen di gis ñoom ñëpp gis nga leen waaw maa ngi leen di xool man kay moom ñëpp gis ngay wax dama lay yërëm ndax damay xam ne yow itam ah. da nga naan yaa ngi prier sa carrière waaye ñoom tamit ñu ngi doon <laughs> yàkkamtee tontu ba prier sa carrière jëru ko parce que tey yaakaar naa ne bi affaire bi amee ñoom dañoo nañ génnaat na dañ doon fen wala ñu ne ma baal ma àq sax ah, ñu honnête quoi moo gën a rafet waaw jéeg honnête daal ne ma ah baarakat ay la yéwén nangam mais taxaw bëgg bëgg dugg ci ron ron lal yi gaa baal naa leen nañ nekk seen ron lal <laughs> ah waaw surprise non ñoom ñëpp Amadou Ba lañ doon waxal mm-hmm. waaw Ba ci boppam mm-hmm. ay sëriñ la yaakaaroon ah. jël addunay sëriñ indi ko Ndakaaru appartement meublé yëpp mu sarse fay sëriñ ah. barke sëriñ Bamba fu ne mu dugal foofu sëriñ jàpp ne defe ne moom maa affaire bi mën na ko wëlbatee wëlbati moom daal tiktokeur yi sëriñ yi Ah? la ko yaakaaroon foofu la ko tegoon waaye sa junniy sëriñ maa leen man hmm? moom xam na xam na jërëjëf Cheikh Bara Cheikh Bara mbir moomu sax parce que yow mii xam nga Cheikh Bara doomu Touba nga te Moustapha Diakhaté prier na Touba moom moom bi mu jëlee coup dafa mel ni Touba la si pi meram xam naa nag résultat Touba yeen na mu doon dawee xam nga tamit résultat Touba yi Cheikh Bara dafa xaw a doy waar parce que 260 nangam Amadou Ba 16 loolu wax dëgg fa yàlla naqari na Moustapha Diakhaté ba Moustapha Diakhaté dal na ci kaw Touba nee na nag tuubaa ñoom xamuñu. waaw te it wax na fa. maa ngi ay wax yoo xamante ni bii moom. maa ngi nuyu moom doo nga ci mën a wax. maa ngi nuyu Mamadou Makhtar Sarr. Mamadou Makhtar Sarr nee ko dinaa ko woo damaa nekkoon ci xat-xat yi rek. gis naa may woo keroog xam naa résultat Touba la may <laughs> léegi Moustapha Diakhaté damay résumé nit ñi li mu wax ci gàttal. ñaawoon na waaye dinaa ko wax ba pare. pour ñu ah. mën a xam li ma koy tontu. Mhm. mooy dafa wax ne Touba wateel nañ koo xam ne du seen mbokk ci diine. Mhm. du seen mbokk ci pas-pas. du seen mbokk ci dara. waaw daa di ne euh, loolu nag day wane ne 1927 mooy ba sëñ Touba génne àdduna. la nit gëj a defaroo Touba nee na sëriñ Touba moom 1927 ak tey jii kenn defaroo wu. Mhm. nga xam ne kon Touba bu sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Muntaxa mi fi nekk mm-hmm. maanaam dañ faa nekkoon noonu waaye defaruñ kenn loolu nag euh, amul problème dinaa ci ñëw mm-hmm. waaye dafa am loo xam ne ci aspect intellectuel laa koy njëkk a tontoo mm-hmm. ba noppi doo ko tontu ci aspect bi mu waxee su fekkente ne Touba dañoo maanaam pourtant Touba ni ñu watee 2012 ak léegi noonu la Matam di watee 2012 ak léegi te mosoo dégg mu tudd waa Matam waaw ñoom ñëpp dañuy ànd bokk ko wateel kenn nit waaw ñu ngi koy def di ko defaat élection yu ñëw. Mhm. pourtant waa Touba ñoom ñëpp dañuy ànd wateel kenn nit. Mhm. mi ngi koy ŋaññi ci Touba te ŋaññu ko ca Matam. lu tax loolu Moustapha Diakhaté. Mhm. bu dee maatam sax man ngaa wax ne ñoom ñëpp dañoo ànd di wateel kuñ mbokk seenu mbokk mu fa dëkk. waaw Touba nag ni ñuy def. loolu kuñ defarut. ba noppi mënoo koo def. mooy nga wateel nit koo xam ne Moustapha moo wax ne du suñ mbokk ci diine. waaw accord du suñ mbokk ci tariixa. d' accord du suñ ci dareet. d' accord dëkkut ca dëkk ba hmm. Touba kay ku nit kuñ defar ba noppi ah. loolu ñu def noonu àdduna lañ ko war a jàngal hmm. kuñ defar ba noppi moo mën a xool nit koo xam ne vision rek nga ko àndeek moom ak jaar-jaar hmm. rek nga nga ko xool ci moom waaye xooloo ne bokkul ci tariixa xooloo ne bokkul ci diine xooloo bokkul ci mbokk gi nga woteel ko ngir jaar-jaaram ak vision bu mu am ci réew mi kon kooku buñ ko defarut ba noppi mënu koo xam dégg nga buñ ko defarul rek mënu koo xam kon dañ koo defar kon ah. Moustapha Diakhaté Touba mënuñu leen a ñàkk a defar ba noppi ñu mën a jël mbokk internet yi eh, ci topp gi safoo gi ak faale gi comme niñ koy faral di defee rek eh, ci seeni jàngat bi la yoon gannaaw eh, première réaction ki nga xam ne moom moo di Cheikh Bara Ndiaye ci élection yi ku ci nekk neem ko woon na kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko mu nekkoon kàddu yoo xam ne ñu baree baree bari jotoon nañ see tiit dontale nag yàlla moom mooy joxe li nga xam ne moom moo dogal Euh, te tamit euh, bëgg-bëggam ci li nga xam ne rek moom moo di réew mi yóbbe woon ko mu yëkkati woon euh, kàddu yi ni mel te kàddu yooyu ñu baree bari jot nañ ko déggandoo ci li nga xam ne moom moo di résultat yi gannaaw bi ñu ko jotee woon a engagé dal ci kawam attaque ko mu naqari woon ko loolu teg si tamit metti woon ko loolu waraloon nag mu yëkkati woon ay kàddoom doon dànkaafu ak bàyyiloo xel Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di état bu Sénégal ci loolu nag mën nañu yëkkati woon na ay kàddoom dànkaaf woon ne woon kii di Amadou Ba du mësa nguuru fii ci réew mii di Sénégal bi maana élection yi bés buñ ñu demee ba si cëppaandaw gi ki nga xam ne moom moo nar nekk président du nekk Amadou Ba kàddu yooyu nag gisoon nañ yenn ci ay leader génnoon di ko weddi ñu baree bari ne woon li mu wax ëpp na ba am sax si ñoo xam ne dañoo yeggoon ci ne wërta woon a giñ ci giñ bi mu giñ que ne bu fekkente ne Amadou Ba gañe na nañ ko muur mu dem sëyi luñ mën a dégg ci kàddu googu mooy que ne kon dina soppeeku nekk jigéen te loolu c'est impossible wala nekk gi mu nekk murit dina ko bàyyi te loolu tamit moom Cheikh Bara mi nga xam ne ne c'est impossible kàddu yi nga xam ne nag moom la ñuy yëkkati gannaaw programmation li nga xam ne rek moom moo di euh, élection yi euh, ci résultat yi nga xam ne moom moo jot a waddandeekun moom mii di Cheikh Bara comme ni mu ko jot a xamle que ni bu fekkente ne woon luy répété wu waat la Bassirou moom mooy raafalewaat li nga xam ne moom moo di bureau yëpp comme ni mu ko xamle woon ne amul benn bureau boo xam ne tey kenn ci candidat yi dina fa gañe muy bureau de votam ku dul ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye mu mel ne kàddu yi ni mel dafa mel ne xaw naa am dëgg ci benn côté donte le nag dafa naroon a tayle lii di laay fam parce que lu baree bari boo ko yëkkatee ci ay kàddu devant tout le monde devant la public li ñu xaar moom mooy nga juum te bu fekkente ne juum nga lim lay mën a yàqal ci sa carrière day bari lool. en tant que ay analyse ci wàllu politique ci jàngat moom mi nga xam ne nag day faral di toog ci ay plateau niki tey mën nañu ci alxamis bi gannaaw ba mu yëkkatee ay kàddoom jot a xam ne ne lim wax daw ci tarfatal ay ni peut-être mën na nekk loo xam ne tey gis-gisam la mais nag erreur mënoon na see am. ndaxte tamit yàgg nañoo gis politique fii ci réew mii di Sénégal mu tourné di warangiku ba dem ci camp bu nga xam ne kenn foogu ko woon donte le candidat yi bari woon nañ lool lu toll ci 19 candidats en tant que moom mi nga xam ne mooy Cheikh Bara Ndiaye jël responsabilité am xam ne que ne kenn la jàpp ne moo war a nekk président ñu baree bari gis ne loolee lu war a mën a nekk la te muy Bassirou Diomaye Faye ndaxte li Olof Ndiaye di wax ne loo bañ bañ lëg nangul ko mën a dawam. ndaxte li ñu nemmi ko ci opposition bi moom mooy que ne moom bokk na si ñi nga xam ne tey euh, ñoom ñoo gën a taxaw pour nag défendre li nga xam ne moom moo di parti au pouvoir euh, ci dal gi nga xam ne mi ngi koy dal ci seen kaw ak di ñeme li nga xam ne moom moo di dëgg ci yenn ci ay discours am donte nag mën nañu xeex la woon bu metti ci diggante parti au pouvoir ak opposition bi la fait nag yàlla jox ndam ki nga xam ne moom moo di Bassirou fay loolu loolee nekk fierté ba tax moom mii di Cheikh Bara Ndiaye nag. mu daal di dellusiwaat pour xam ne que ne que public ki nga xam ne moom moo di Bassirou moom dafa gëmoon que ne moom moo war a dem te tamit li nga xam ne moom lañ teg ci gannaawam liggéey bu nga xam ne nag bu doy waar a doy waar la ndaxte ñu baree bari ci opposition bi dañoo taxawoon jàppoon que ne du mën a dem parti au pouvoir ñu baree bari taxawoon jàppoon que ne du dem comme que nag yan bi tey yëg na ci kawam lan moo war a nekk suite bi ci liggéey bi nga xam ne tey. Sénégalais yëpp ñu ngi koy xaar defal ci topp gi safoo gi ak faale bu fekkente ne gan nga